ñu dem ci Moustapha Diop ay Moustapha Diop bandi bi bon Moustapha Diop Bamba Amar chauffeur la Ahmadou Bamba Amar moo doon décaissé ay cinquante millions cent millions ci corona bi kooku du lekku ci dara lekku ci dara prête noo la Moustapha Diop Amadou euh, Mouhamadou Bamba Amar chauffeur kese la mu ànd moom kooku da ko doon moom moo ko doon moo ko doon amul entreprise amul dara simple chauffeur la séddoo la rek moom ay milliards lañ ko ci ku nekk dañoo séddoo mille milliards la kii jëlal huit milliards kii jëlal douze milliards kii jëlal quinze milliards xalif général bi sax xalif général day murit xaalis bu mu dugal maye ko Amadou Bamba Amar Mouhamed Bamba Amar moo ko rocc cinquante millions lundi cent millions mardi cinquante millions mercredi cent millions jeudi cinquante millions vendredi cent million samedi cinquante million dimanche cent million ba ba ba ba mu jot seen quota ba ñu jot seen quota maanaam huit milliards nangam ñoom mooy seen quota ñoom mu jox Moustapha Diop Moustapha Diop dugal ci kontam versé donc ñii dañ ñoo yoreel jàpp leen rek buñ fi nekk sax ay débat ñii dañ ñoo cent mille mille milliards gouvernement Macky Sall dañ ñoo yoreel mille milliards six mille milliards Aliou Sall mille milliards coronavirus corona business donc jarul ay détails gouvernement Macky sàll bi fekkee jamonoy corona yoral nañ Sénégal mille milliards donc chauffeur bi du ci dara famille ci boppam xam nga waxoon naa leen dafa am frère bu dese famille am nee nañ ma moo la mu ñu waxante dëgg rek man la mu ne ma billaahi bamba yorul dara Bamba yorul fukk Moustapha Diop ko jàppoon di chauffeur am la di ko dugalal muy dugal di ko roccil di ko jox mais Bamba moom dof la rek da koy liggéeyal ay weccat la cay am ay sew sew ay million ay deux million trois million nanga la ci Bamba di am mais lekkul milliards yooyu gisu ko sax ñun ñuy njabootam yoruñu gisuñu daal Saint-Louis lañ dëkk dëkkuñ sax Louga Mouhamadou Bamba Amar Saint-Louis famille bi nee nañ lekkuñu dara ñi nga noonu torox tortu lekkuñu naanuñu Bamba defu fa dara Mouhamed Bamba Amar defu fa dara dara kër gaa nga noonu dara du étage du immeuble du dara ki ab chauffeur la buñ utiliser pour muy leer léegi nag ki nga xam ni moom mooy dam dama leen di won awaña xam ngeen awaña nii waa Dalifort dañu aay de Dalifort awañaa boo leen demee Dalifort da ngeen doon gis mur Dalifort yi ñu fa doon bind awañaa gelu Moustapha Diop awañaa xale yi Moustapha Diop xale yi dañ dañ bandi de Moustapha Diop moo doon wudaan wang awañaa ci cagaam yi la bokk kii Dalifort Moustapha Diop moo koy wudang waŋ moo koy dëpp ka dëppi moo koy ñam kii mooy Awa Niang ancienne questeur à l'Assemblée national am jëkkër ba pare topp Moustapha Diop mu koy tëddee période campagne Dalifort booy loolu lañ doon bind ci miir yi miir yëpp campagne ba booy Dalifort yëpp moom lañ doon bind ci miir lañ ko doon bind Awa Niang cagay Moustapha Diop te dafa am jëkkër mais Moustapha Diop da koy tëddee da koy wudang wang kii mooy awaña Moustapha Diop da koy wudang wang ñu dem keneen kii mooy jàpp ci caga Moustapha Diop bi la Moustapha Diop caga bu bon bu international moom ak Mathiucou sorante am na ñu naan moo gën a tàng ma jàpp leen kii tamit ci caga yi Moustapha Diop bi mooy kan ok ñu kii mooy kantoom si dëkk Tiwaawoon di doomu Sëriñ Mbay si Mansour ku ñakk kilifa topp Moustapha Diop di nekk teeru bi saa yoo leen demee teeru bi Moustapha Diop kum bu duggee teeru bi ba jël fay appartement bu pour fa fanaan kantoom mii lay fanaane kantoom si mii lay fanaanoo teeru bi chaque jour Tafa Diop di ko tëddee te dafa marié jëkkër la yor mi ngi ni kii ci cagay Moustapha Diop yi la bokk seen ministre ci cagaam yi la bokk et marié la marié Moustapha Diop day tëddee kii di doomu sëriñ mais nag doomu sëriñ taxut a doon sëriñ doomu sëriñ taxut a doon sëriñ ku la topp rek daa nekk doomu xaram mais doomu sëriñ taxut a doon sëriñ sëriñ dañ koy jàng sëriñ alxuraan luy def sëriñ ma xam-xam te xam-xam dañ koy jàng kenn du ko judduwaale ku ñàkk sa fayda ba topp koo xam ne doomu nangam la juddu juddu kenn du ko judduwaale ñun ñi ñëpp suñu baay am na luñ doon te ñu doonuñu ko parce que jànguñu ko leneen lañ doon man sama baay du rappeur te dama aay ci rap donc sama baay li doon taxul ma doon ko donc kii di kii mooy kantoom ñu naan ko umm kantoom milieu bi xam ko kantoom dëkk Tiwaawan di doomu Serigne mbay Sy Mansour ñàkk kilifa topp Moustapha Diop mu koy yóbbu teeru bi di ko tëddee dafa am jëkkër mi ngi ni kantoom cagga bu bonu ngi nii cagga cagga international dafa am jëkkër mais Moustapha Diop da koy wudang wang mi ngi ni te amul xam-xam pourtant doomu Serigne la amul xam-xam barke alxuraan amul xam-xam donc doon sëriñ taxul am xam-xam doomu sëriñ taxul da amul benn différence ak yéen dara kii yàpp dara kese la lu mu deful ci boppam bi munul nekk ci bopp bi bopp bi cagaa ci nekk taxawaalu ci ne malgré am na jëkkër mais day taxawaalu jox taatam Moustapha Diop lu mu dugalul ci bopp bi du ko fa fekk bopp loo ko fa dugalul doo ko fa fekk kii mooy kaltoom ah ok ok ñu dem kii moom xam ngeen ko it jàpp leen kii xam ngeen ko ok kii mooy Viviane Chidid Viviane tamit ci pétaasu Moustapha Diop yi la bokk Moustapha Diop di ko tëddee mais Moustapha Diop nag temps yi da koo bàyyi parce que nee na Moustapha Diop nee na Viviane dafa mën a ñaan xaalis Moustapha Diop moo ko wax Moustapha Diop day tëddee Viviane pétasse la ñoo tax Viviane du sëy fenn du yàgg fenn du taxawaal fenn ab caga la bu bon la li ngeen gis ci moom nag melul noonu Viviane yaram bi ay reew la yaram bi yëpp ay reew boo ko xoolee boo boo xamee Viviane boo ko xamul nag Viviane yomb na cagala yomb na trop Viviane jigéen bu yomb la jigéen bu yomb dëgërut xel mi dafa oyof man Viviane jot naa ko xam jot naa ko xam nag moom mooy ñun ñëpp ñoo nekk ci aar bi yàgg naa toog yëngu leen tafaa boobu tafaa sax tafaa di ko këfte boobu tafaa takkugu ko Baay Faal bi tuddee na ma concert le vingt cinq suba incha allah dina am concert place de euh, euh, de la civilisation ba ñu doon dem répétition yëngu leen fa lañ doon toog tafaa da ko doon këf di dóor te boobu takkugu ko sax maa ngi naan chaame booy bi moo nangam tàndaayam gel bi caga dëgg la quoi Saala ko doon naan nga bi vrai bitch la quoi booy booy Viviane mii oyof sër la oyof sër bopp bi dara newu ci dof la dof alal rek yaram bi yëpp def ay rew xottete ma ne waaye mais gel bi pourtant kanam gi lay puudar kii caga-cagalu de yaram gi yëpp rew la ween yi lépp chirurgie la ko def mais rew yi xaw ma ndax mënu ko defar rew yi nga gis sidit yi me ni lu vert ci biir yaram bi da ngay gis sidit yi nii xam da ci boole xeesal boo ko xoolee ni yaram bi yëpp ay rew rew yu def ni xotteeku yaram bi yëpp def ni biir bi yëpp rew rew yëpp fépp ba ci ween yëpp rew <laughs> mais donc Viviane mii moom càgga bu mag la moom moom kenn du ko wax dama ko xam càgga bu mag a ngi nii ku oyof sëri ngi nii dëgërut taxaw fenn du taxawaalu fenn càgga international donc kii nga xam ne mooy Moustapha Diop Viviane càggam la Moustapha Diop nag comme dafa rëy làmmiñ bëri wax toog na fenn nee na Viviane na fait demande moo tax mu bàyyi ko donc nee na Viviane sax woy na ko génneel na ko single mën duma déglu Viviane xaw ma ay woyam waaye xool leen ci répertoire Viviane am na benn woy bu mu tuddee Moustapha Diop boobu da ko doon wërang wang di ko cappic ñammit cappit ñammit yor ay yu sew di ko ko caw yor si yu sew di ko ko caw mu koy ñaan xaalis suba ngoon ko dégg bëccëg donc Viviane génne na single boo xam ni mi ngi ko tuddee kii nga xam ne moom mooy Moustapha Diop bu dee bu dee du dëgg rek ne la ma du dëgg parce que information yi moom loolu la wax waaw mais Moustapha nee na moom bàyyi na ko jamono ji moom génnul bàyyi na ko bàyyi na ko parce que tout simplement dafa mën a ñaan xaalis voilà ñu avancé kii caga mu Diop bi laa ñëw de xam xamee ngeen kii ok ñu dem kii tamit ci la bokk mi ngi tudd Fatou Bintou Pouy Nindi la dëkk Nindi Fatou Bintou Pouy Nindi la dëkk di sëy ak sëriñ Abdul Karim Mbàkke donc am jëkkër am far kii it ci ñu Moustapha Diop di wudang wang la wudang déglu lan de damay lii radde moo ragal wax toog fay jooy dëgg xàq bil xàq amul daw amul tiit amul gàddaay fit am dama ne te bàyyiwuma kenn nag ku bàyyiwul Macky du bàyyi keneen dama ne kii jàppaleen mi ngi ni kii ci cagay Moustapha Diop la bokk ministre Moustapha Diop ministre ñun duñ bàyyi kenn kenn duñ ko bàyyi kii Fatou Bintou Pouy dëkk Nindi di di sëy ak Serigne Abdoul Karim Mbacké am jëkkër am far Moustapha Diop da koy wurang wang da koy tëddee partout en même temps c'est une pétasse de Aliou Sall frère de Macky Sall jàpp nañ leen màkk umra kii leen di wax nii muy faatu Bintou Pouye jàpp nañ ko màkka umra moom ak Aliou Sall kii umra jàpp nañ ko màkka flagrant délit umra moom ak Aliou Sall rakk Macky Sall nii nii xëyuñu gontuñu taxawaalu wëndaalu lekk weccetu taalibe yi wérul yi dof yi ñu yeewul yi topp ci di dunguru ak a gisuñu fa seen avancement gisuñu fa seen dara tous donc kii ci caga yi la bokk ok ñu dem Moustapha Diop xamee ngeen ki xamee ngeen kii ok kii mi ngi tudd Ami Dieng Ami Dieng kii cagay Moustapha Diop la Moustapha Diop cagaam la ils ont tout fait ensemble lu ne def nañ ko ñaar euh, moom ak kii kii ma leen di wan ni xool leen kii xam nga yab nit weesuwut yab nit weesuwut ñuy wax ay turu jàmbur ay doomu aadama ngeen ne tekk ñu tudd beneen turu keneen ngeen ne noo kii buñ ko laal wala kii nañ ko jege loolu yabaate la yow yab yàlla la yab yàlla la Muhammad sallallahu alayhi wa mooy gën di mbindéef am na am na nijaay bu bon ay yonent yàlla yónni na leen seeni mbokk am ay mbokk yu bon Muhammad sallallahu alayhi am na mbokk boo xam ne ku ka jege mi ngi safara jahanama respecté leen suñu borom subhanahu wa taala ngeen ragal suñu borom moytu leen suñu borom respecté leen suñu borom ragal leen suñu borom ngeen bàyyi seen caaxaan yi man caaxaanuma caaxaanu luwuma bu yàlla bàyyiwul nijaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën di mbindéef du fi bàyyi keneen bu yàlla baalul nijaayu yeneen bi jël ko tëmbal ko safara te yonent bi toog ak moom nan ko waxal ashhadu laa ilaaha illallah rek waxal ashhadu laa ilaaha illallah munu ko wax yàlla tëj gémmiñu nit ñi nijaay ya ba tëmbal ko safara du fi bàyyi ay doomu sëriñ ak ay jabaru sëriñ ak nijaayu sëriñ respecté leen yàlla te ngeen ragal yàlla te ngeen di def dara di ci xool yàlla tur yi ñuy wax ni yëpp ay nit lañ ngeen di dégg ñeneen ne ñooñu ñoo yàlla yi ñooñu buñ doonee seen yàlla man dooñu sama yàlla buñ doonee seen yenent duñ sama yonent duñ samay tus ku ci nekk ci bu salte dañ lay génne ak koo na a doon injustice loolu da ngeen koy xeex mënuñu ñu wax paate ngeen ne waaw ñu ne demba ngeen ne waaw ñu ne amina ngeen ne non non non bu ko laal parce que kii dafa bokk kii foog that yéen ay naafeq yéen a bon yéen a yées képp kuy ànd ci lu mel noonu bu ñu waxee keneen nga ne waa bu ñu ne bii nga ne noo bii bu ko kenn laal what the fuck quelle injustice de merde quel naafeq quel nit yu bon quel yées quel nitu safara man yàlla yàlla laa ragal te yàlla laay xool ku bon ñu génne la ak foo mën a bokk ku bon ñu génne la amul benn famille bu ñëpp baax amul yàlla sàkkul benn famille bu ñëpp di wëliw ñëpp baax bu amee it bëriwut abu laxab nijaay yeneen tubi la xaqan xaqan yàlla dafa dem ba wàccal ko ab sóor sóoraat te nijaay la ku leen ni ku ne nijaay ne yaay suñu borom wàcceel ko ab sóoraat di ko tëkku di ko yóbbu ci sabara wàcceel ko nga koy jàng Abu Lahab kon yàlla bu bàyyiwul yenentu nijaay yu yenentu du bàyyi keneen ñun amuñu lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal wala lu ñuy calculer soyez vrai jàng leen nekk ñu dëggu jàng leen nekk dëggu jàng leen dindi seen hypocrisie seen xol yi jàng leen dindi fen ci seen xol yi gëm leen dëgg doo ak fu a jóge kii ñu dem xool leen ko comme ñii ñooy kumba amul ndey yi ñeneen ñi ñooy kumba am ndey ki kii elle s'appelle Ami Dieng kii nag moom c'est la vraie pétasse de Moustapha Diop lu ne def nañ ko ensemble même période campagne yi Louga femme bi day ñëw affiché wu sax ak Moustapha Diop suñ paree dem Saint-Louis fanaan fa tous les jours campagne Moustapha Diop yëpp kii la àndal Ami moom mi la àndal Moustapha Diop day jël ndaw sii di ko yóbbu Nord Foire ndaw si dafa fanaan pendant ce la femme de Moustapha Diop pendant ce la femme de Moustapha Diop moo ngi pari avec ses enfants la femme de Moustapha Diop moom mi ngi pari avec ses enfants pendant ce mu jël ndaw si di Ami di ko yóbbu këram di ko yóbbu këram di ko fanaanoo noor Foire mu ko yóbbu këram noor Foire di ko fanaanoo pendance ce temps jabaru Moustapha Diop mi ngi pare ak ay doomam mu jël xaalisu mobilisation le tout di ko ko dénk def ko attaché de cabinet ndaw si cagam bi mooy attaché de cabinet Moustapha Diop dem leen ngeen xooli attaché de cabinet Moustapha Diop elle s'appelle Ami Dieng kii la mooy attaché de cabinet mu xool leen ab diriyanke Moustapha Diop kii la jël def ko attaché de cabinet jox ko ay millions di ànd ak moom ci campagne di fanaanoog moom hôtel matin midi soir di ko dëpp di ko dippi jël suñu alal gi yëpp en dans ce temps Moustapha Diop sàcc suñuy milliards ñu naan ko l'argentier Moustapha Diop pendant temps moom mi nga jël kii sax di ko yóbbu kër kër jabaram sax di ko fa tëddee boobu jabaram ak ñaari doomam ñu ngi France mu jël Ami Dieng def ko attaché de cabinet mu nekk ministère di def lu ko neex di yàq xaalis bi di dem ay Amérique di dem fu ko neex ci monde bi di def lu ko saf Bint Rasoul Ndiaye mooy la femme de Moustapha Diop Bintu Rasoul Ndiaye la femme de Moustapha Diop dem ba yëg ni carrément que jëkkëram mi ngi fanaanoo ak amidien bi nga xam ne Moustapha Diop moom la def directrice de campagne moom la def chargé euh, de cabinet chargé de cabinet cagaam bi la la def loolu jabaru Moustapha Diop di Bintu Rasoul Ndiaye dem ba yëg loolu mu bett ndaw sii di gàllaaj jabaram ndaw sii kii di Amy Dieng ja jabaru Moustapha Diop di Bintu Rasoul Ndiaye jàpp këram kii nga xam ne mooy Amy muy mystique mu koy mystique mu koy sëriñtu waaw Moustapha Diop xale xaalis te baay ji pauvre yaay ji pauvre mu yor ay milliards xale xaalis fii ci Sénégal donc war nañ xeex de ñun war nañ xeex de donc Moustapha Diop dem ba yëg boo jabaram dem ba yëg opposé wu carrément ni ko bëggatul gis femme bi jabaram ne ko bëggatul gis femme bi ministère Moustapha Diop di ko nëbbu mu dem ba bett mu koy gàllaaj yu bon problème boobu jabaram ak Moustapha Diop moo tas jabar ji moo tas diggante bi gel bi elle habite à Yoff boutique prêt à porte la fa am à la sur la VDN en face Alain Aflelou gel bi prêt à porter Moustapha Diop prêt à porter bu ngand en face VDN en face Alain Aflelou la boutique s'appelle Princesse Sophie la boutique Princesse Sophie xaalis boobu yëpp xaalisu seen état bi la xaalis boobu yëpp prêt boobu yëpp Sénégal ñoo ko moom VDN en face Alain Aflelou. Aflelou. La boutique qui s'appelle Princesse Sophie Sénégal moo ko moom Sénégal moo ko moom Moustapha Diop ministre la bu nekk Louga ministre bu Louga la bu dëkk Dakar waa Louga donc bokk na mu ngi noonu waa moom laa leen woon mu def ko attaché de cabinet kii te daa yor boutique mu jox ubbil ko boutique Princesse Sophie en face VDN en face Alain Afflelou foofu la ko ubbil magasin prêt à porter bu mag jox ko ay milli million millions bi di chargé di jaay ba pare mu def ko attaché de cabinet attaché de cabinet di ko yóbbu kër jabaram di ko fa tëddee di ko laal matin midi soir di ko fay ci suñu xaalis mu am par mois di ko fay ay ñu dem keneen ko oh, yooyu Moustapha Diop la de ku càgga bu bona bon ak sëriñtu càgga sëriñtu xool ki kii keneen a ngi ni moom la ñuy woowee xale xaalis Moustapha Diop <laughs> xale xaalis kay ok kii ñu dem gars yi ay ci ñu avancé ñu avancé mënuñu wax lépp Moustapha bon kii elle s'appelle Ami Cheikh Diagne Ami Cheikh Diagne mooy doomu Basirou Diagne ancien Serigne Ndakaaru mi ngi dëkk Ngumba Ngéwul kii doomu sëriñ Ndakaaru <laughs> tey caga ji caga ji ñuy fépp caga fépp la ñuy juddoo caga ji fépp la ñuy juddoo ci giribaan yëpp la ñuy juddoo c'est pas parce que sa baay doon lii wala sa yaay caga ji ci giribaan yëpp la ñuy juddoo billaay wallaay caga ji giribaan yi yëpp la ñuy juddoo dëkk yëpp am na caga giribaan yëpp caga ji donc qui s'appelle ami Cheikh Diagne doomu Basirou Diagne ancien Serigne Ndakaaru mi dëkk Ngumba Géwul côté Kébémer Moustapha Diop daf ko jëlal appartement Dakar Sicap Foire Moustapha Diop da ko jëlal appartement ci suñu xaalis da ko jëlal Sicap Foire appartement di ko fa jaar di ko wudang wang ngumba géewul la dëkk kii Tiwaawoon ami Cheikh Diagne doomu Basiiru Diagne ancien sëriñ Ndakaaru ngumba géewul côté Kébémer Moustapha Diop jël ko fa rocc ñëw indi ko jële ko appartement fii ci Dakar Sicap Foire dem fa de temps à autre di ko tëddee et pourtant jabaru jàmbur la jabaru jàmbur la kii xale xaalis yor sañuy milliards ma ngay tëddee ma ngay wudang wang jigéen ya di leen jox xaalis xaalis xaalis Moustapha Diop moo raw ma cuucu fay barke alxuraan Moustapha moo raw ma cuucu kii donc ngeen jàpp ko muy ami Cheikh Diagne doomu Bassirou Diagne ma nga ca dëkk ca Sicap Foire foofu la ko Moustapha Diop wutal appartement à louer di ko fa jaar di ko wutang wang te jëkkëru jàmbur la te jëkkëru jàmbur la te jëkkëru jàmbur la ay ñu dem jàppaleen kii tamit yellu Moustapha Diop yi kay dañoo bëri xool leen ok kii kan la kii mi ngi tudd joor Diagne Moustapha Diop dafa doon nekk ak moom suba ak ngoon guddi ak bëccëg di ko tëdde joor Diagne ci caga Moustapha Diop bi la bokk joor Diagne joor Diagne ci complot ba la bokk moo ko orchestré ci instigateurs yi la bokk joor Diagne bokk na ci cagay Moustapha Diop bi da koy wodang wang da koy dëpp ka dippi Dior Diagne ci cagay Moustapha Diop bi la bokk xamante nañ bu baax ñam na ko ñamati ko ay ca ñu demaat keneen kii kan la kii kan la waay kii kan la d'accord kii je que war ngeen ko xam moom it mi ngi tudd Fanta Sall Fanta Sall mooy gel bu ngeen doon gis mu nekk assemblée nationale di wëndaaloo ko taxawaalu di riij di war mbiij di ñàng-ñàngulu di jaay caga ba ngeen ko doon waxtaan yëpp Fanta Sall xool leen bu baax Fanta Sall mooy seen député boobu waŋ jaay fonde di jaay fonde amul pertement caga ja Koungheul waaw waaw pourquoi euh, ils sont tous de teint clair loolu laaj ko Moustapha Diop moom moom moom moo xam ñun mënuñu cee wax donc kii elle s'appelle Fanta Sall député Koungheul moom nag gelu gaa yi la nag vrai officer te tête vide la dof la amul bopp waa APR dañ koy tëddee dañ koy utiliser di ko foowee Moustapha Diop nag tëddee na ko da koy tëddee guddi bëccëg suba ak ngoon da ko tëddee ba mu sonn fu ne nag tëddee na ko fa da ko tëddee ba mu tas ci la nag benn dof bu jógee Côte d'Ivoire ñëw takku ko mu jël boppam bàyyilee ko Moustapha Diop de bu leen de Fanta Sall mi jëkkëram Côte d'Ivoire la jógee benn dof bu jógee Côte d'Ivoire Fanta Sall bii ak xam kooyu Moustapha Diop bi ak a xam sullu Moustapha Diop bi fu ne jaar nañ fa Fanta Sall mi da koy tëddee suba ngoon guddi bëccëg suba ngoon guddi bëccëg matin midi soir dose matin midi soir Moustapha Diop da koy tëddee il s'appelle Fanta Sall député Koungheul Moustapha Diop caga kii caga Moustapha Diop la da koy tëddee matin midi soir bu mu ko demee ba jeexal sax ci la jeexal gel bi gel bi da Moustapha Diop da koo jeexal takk amatul dara dara dara dara dara ci la ko benn dof bu jógee Côte d'Ivoire ñëw takk kii Aly Ngouille Ndiaye wudang wang na ko ba sonn Aly Ngouille njaay moo ko njëkk a jël wudang wang ko moom Fanta Sall Aly Ngouille Ndiaye moo ko wudang wang ba mu tas mu jox ko Samba Ndiobène Ka ministre Samba Ndiobène Ka wurang won ko ba mu tas Moustapha Diop ñëw këf ko ci Samba Ndiobène Ka wurang won mu tas mu am fële benn ku dof bu jógee euh, Côte d'Ivoire xamul lu géej gi di riir ñëw jafandu ci mais ba léegi gars yi ñu ngi koy iri mais ci Aly Ngouille Ndiaye la njëkk jaar mu ñama ñama ñama ñam wurang wang ba mu tas Samba Ndiobène Ka jël wurang wang wang wang wang ba mu tas ñëw jël wurang mu tas ñu sànni booy bu jógee Côte d'Ivoire ñëw këf jël ba léegi gaa yi ngi koy jàpp am na ñeneen ñu nekk APR ñu koy dóori gulaali kii nga xam ni mooy Fanta Sall dof la nag dara newul ci bopp bi dof la xamul dara dof dof dof vrai dof dof dañ leen yóbbu assemblée pour ñuy saagawaate ndey di menacer waate donc voilà euh, ñu dem Moustapha Diop mi ngi dëkk Nord Foire cité BCEAO ci wetu këru Waly Seck appartement la am foofu dafa loué deux chambres salon villa bi mi ngi tudd Mamel mais dëkku fa c'est spécialement réservé pour des raisons mystiques. Il fait partie de l'un des plus mystiques du Sénégal, ku gëm Moustapha Diop. bokk na ci ku gën a mystique bëgg Moustapha Diop boo leen demee comme ni ma leen ko waxee Nord Foire cité BCAO ci wetu kër Waly Seck appartement la fa am deux chambres salon villa Mamel fa lay def ay sëriñ di sëriñ tuwaate à côté de là il habite à côté am na fa deux appartements uniquement pour benn gàllaaj wetu foofu tamit juste à côté am na fa deux appartements loués pour spécial gàllaaj ay paani paani paani paani paan paani paani paani paani paan deux chambres gàllaaj sangu rek sangu rek suba ngoon dafa sangu ba ga def takk diw naan gas suul kese benn bi ay sëriñ la fa yóbbu mooy bu ma leen di wax nii mooy euh, villa Mamel beneen bi ay gàllaajam lañ fay dugal gàllaaj sangu sangu xërëm xërëm xërëm sangu matin midi soir matin midi soir matin guux naan diw takk suul sëf lépp mooy ministre boo xam ne il faut absolument absolument rien dans le ministère il a pris des gens qui font ce temps tout ce temps là moom mu jël ay nit ñu toog fa moom day wër rek di taxawaalu sëriñtu tëddee sëriñtu tëddee mooy dundam il vit que de ça sëriñtu wudang wang sëriñtu wudang wang mi ngi teeru bi wax naa leen ñu muy iri ci teeru ba teeru bi hôtel ba le matin mi ngi teeru bi l'après-midi le soir boo leen demee teeru bi Moustapha Diop mii di ngeen ko gis teeru bi teeru bi boo leen demee foofu di ngeen gis Moustapha Diop fa lay taxawaalu fa lay indi cage ji suba ngoon guddi ak bëccëg ñun on veut un changement radical on veut pas mooy lu ma leen wax voilà mooy li ma la wax dañoo bëgg changement buñ bëggee changement dafa am loo xam ne dañ koy dañ dañ dañ koy jox cër mais cër duñ ko jox kenn ku ko mérité wut kenn ku ko mérité wut duñ la ko jox man du ko jox kenn ku ko mérité wut non man kenn gënu manday kenn gënu ma bàyyi munuma gëm kenn fii ni yow da ngay nekk ci ñaaw téef wala naka sudul noonu ma lay réserver benn droit de waruma la wax damay wax sa wax sa baay déggu ma de amul benn doomu sénégalais boo xam ne am na waruma la joxoñ ku ma fi gis moo war la joxoñ man danaa joxoñ sa ndey nii ngay gis ma ne la yow la te kenn mënu ci dara man j'ai pas de différence kii laa war a waxal kee duma ko waxal kee moo jur kee I don't give a bu dee yàlla laa gis muy muy muy alak nijaay yenent bi du man du ma bàyyi kenn ku nekk ci nakot sudul kenn kuy dox ci ay fen man du ma ci dox te wax naa ko nee naa Ousmane Sonko bu bëggee avancer réew mi day jël yéeg ngëm-ngëm yooyu tegee ko nële mu dund ko dundam la mu tegal ñu loo xam ni état lañ wax état jaarale mbir yi ci yoon kenn du gën kenn ndey on est né égaux on est né égaux libre du ñu dem ba jimmi jamono ñuy jëlale nit di ko gënale nit parce que mu doomu nit moo ko jur wala kële moo ko jur non égalité dignité nit mooy yëkkati boppam nit mooy wàcce boppam man noonu laay nawee nit liggéey fi lu tax ma respecté la waaye def fi lu tax ma ma bañ la respecté ma manqué la respecte loolu ci nit bi la mais benn nit laa fi dul jox cër parce que doom nit la wala doomu kee la ñoom ñëpp ay doomu nit lañ ñoom ñëpp ay doomu nit lañ ñoom ñëpp ay doomu nit lañ du ñu doomu yàlla du ñu doomu yenentu ñoom ñëpp ay doomu nit lañ da ngay def yëfu nit ñu jox la cër ngay def yëfu caga ñu wili pande la ak foo mun a bàyyeekoo gënoo fi kenn ndey ku ñàkk fayda ba nga gën ko ndey yaa xam man noonu laay doxee te kenn mënu ko dindi ci man kenn mënu ma lem pour ma toog ci lu fais pas te loolu ñu ma jur xam nañ loolu ci man man dama jox sama boppu cër kenn gënu ma ndey kenn gënuma ma baay kenn gënu ma du ma sukk ci kanamu kenn what the fuck is going on man génn naa dem mbedd ñëw fekk sama kër ab ku ñu kilifa la mu toog nekk sama sëriñu frère mu toog ci kaw fauteuil bi sama baay toog ci kaw fauteuil bi ñëpp toog ci suuf il paraît que sax sama baay daa bëggoon toog ci suuf mu ne ko kaay ci kaw ma ñëw nga yi na ma hey déglu leen de hey ne ma sëriñ tel moo nekk ne ma ne ah ma dox tak tak tak tak ñëw ba ci moom taxaw dox sama papa nag ah, sama doom la ah, waa na ngeen ma ne ko waa maa ngi taxaw du ma sukk du ma raam yàlla rek moo bind na ma sukkal ma ma sukkal ko raamal ma ma raamal ko mu ne ma jullil juróom sëkk su sukkal ma ma sukkal ko siggil ma siggi taxawal ma taxaw sukkal ma sukk yàlla sax waxul ñëpp nañ sukk ñu sukk seen diiru dund kooku du man loolu du man ma sukkal doomu aadama du raamal doomu aadama ku fi nekk ci naka sudul dama